ziar bu baax di ziar ñi nga xam ne ñoo ngi àndandoo ak waa IGFM point sn groupe Futurs Médias <laughs> ñoo ngi leen di ziar bu baax baax ci weeru koor ci fukki weer yi ak benn daal yéen jullit yi yéene ko moom xam nga yàlla su doon ni mbir mi football la avant ñuy dugg ci terrain bi moom wutal nañu ñetti bii ni yéene ko moom weeru koor ci la bokk ñu doog a dugg ci terrain bi loolu nag boo xoolee ni muy demee rek parce que koor dañ lay wax ne la lim ciy fay ak ni koor ni demee ak xéwal li ci bàyyi ko waxuma la dara waaye ñetti ñetti ñetti xaaj yi mu xaaj koor di yu am solo yoo xam ne mooy njariñal jullit ci àddina xam nga nit man ngay dund atu yàlla ay sa xel du musa dem ci yàlla sa xel du musa dem ci lu baax sa xel du musa dem ci retrouver waat sa bopp sa xel du musa dem ci dellusiwaat waaye xoolal ñi nga xam ne sax wóoruñu bu koor gi ñëwee dañuy daal di dellu siwaat dañuy daal di xam ni jamono bi jamono bi sax day changé jamono bi day daal di suppikuwaat dellu siwaat moom ci jamono dellu siwaat ci yàlla nit ñi dellu siwaat ci yàlla ñi nga xam ne du ñu ay jullit sax dañuy xam ne am na lu xew moo waral loolu daal yàlla moo ko may jullit yi may leen ko ci jàmm may ko nit ñëpp nag kenn ku ne mën cee dund moo tax comportement yi nga xam ne moom la ci yàlla tënk rek loolu mooy tënk bi ab jullit ni ci war a tënk mooy ñetti weer yi ñetti euh, ñetti ñetti ñetti fukki fan yi ko yàlla tënk ci weer wi mooy eh, fukki fan yu jëkk yi yàlla nee na eh, yërmande la yërmande nga xam ni ki faatu sax soo koy ñaanal da nga naan yàlla na yàlla yal na dajeek yërmande yi sunu borom nga xam ni léppi sunu borom liñ ci gën a soxla mooy yërmande kon koor gi fukki fan yu jëkk yooyu soo ko accompagner téyel ko sa bopp géré ko ni ko wara géré ñaan ci yalla sa borom bañ ci nelaw parce que dañ ci luñ ci soxla sax moy nga bañ tardé heure yoy ndax pour mu ñëwati problème lay doon moy fukki fan yu jëk yoy ci korati déwén rek la fi ñëwaat parce que xeet yu yërmande ye cay am ak xeet bi nga xamni mom la ko yalla tudde tudde parce que jël fukki fan yoy tudde ko wutal ko autour té te yalla am tour yoy mom mok mok fukki fan yoy rek ñoko ko tudd mu na ngeen ku gorlu ba bu len ci nelaw guddii na ngeen ci góorgóorlu ba jël seen xeet yooyu di ko doxe muy yërmande jooju seen diggante yi seen seen biir ngeen roy ma ci mooy fukki mooy diisu yu jëkk yooyu nga jànge ci rekk ni yërmande jooju moom la jaam bi bu dee dund ci àddina xalaatul soxlawul kooram soxlawul natt azakaam soxlawul dem màkkaam soxlawul julleem soxlawul daraam saa bu nit ki tëddee ci kuusu bàmmeel dañ naan yàlla na yàlla yeesal yërmandeem ci fi mu tëdd bu ñu yàlla ko yàlla fay julli lim julli ci téeméeri julli mu julli kenn du ni lim woor lépp ko yàlla fay fii kenn du ni màkka gi mu demoon yàlla na ko ko yàlla fay li muy soxla rek mooy yàlla na ko yàlla yërëm moo tax yërmande lépp yàlla yërmande la moo tax fukki fan yu jëkk yooyu yàlla da ciy fàttali jaam ni pour que bu ñu xalaatee ni kat yàlla yërmande jooju yaatu na ñu xalaat suñuy diggante nag naka la ñu war a yërëmantee ñu roy yàlla parce que yàlla dañ ko roy di nga yàlla neen sama ay jikko ni ci jël ba doyal yéen jaam ñi li leen li li maanaam li ngeen ci war a jël na ngeen ko jël ngeen dunde ko ci àddina loolu nag mooy fukki fan yu jëkk yooyu nga xam ni yàlla dam ni na ngeen ko jël ngeen donn ngeen roy ci ay jikko mooy yërmande jooju nga xam ni moom nga war a doxe ci jaam ñi kenn ku ci nekk ki nga war a yërëm nga yërëm ko parce que yërmande boo ko defee nit ki rek dafay am lu muy lu muy dafa am lu muy juraat ci seen biir yéen ñaar te képp koo xamee ni yaa gis nit muy dox te sa xol du du yëngu ci ñeewante ko ba yërëm yërmande mën a am defe naa ne sa nite dafay dafay daal di des moo tax yàlla wàcce lool pour nit ñi cee fàttali ni kat ab jaam su dee dund ci àdduna dafa war a yërëm moromam jaamam te ki nga yërëm mooy ki nga tane yonent saa salaam bi muy dem rek loolu la doon wax na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen góorgóorlu ci ñi ngeen yilif te yërëm leen maanaam ñi ngeen ñi na ngeen ni ngeen ni ngeen di dimbali ñi ngeen yilif doo leen leen yërëm moo tax di yërëm yërëm jaam nit ku amul yërmande ci jaam rek kooku daanaka am nitam dafa des dem na ba ci sëy bu yàlla boolee nit ak nit lim ciy gën a soxla mooy côté yërmande moo a xama la wax jigéen soo ko day yor góor soo ko day yor bu ngeen dee nekk yéen ñaar na ngeen bëggante maanaam na nga sopp jigéen ji mais na nga ko yërëm parce que xam na ni diiran liy yàgg yërmande rek moo fa mën a dox moo fa mën a nekk yàgg fa amul leneen parce que bu dee cofeel la bu dee taar la bu dee alal la lu mën a doon day dem bàyyi fa kon la fay war a des rek mooy nga yërëm nit ki te nit ki dina la bëgg bëgg bëgg ba boo ko yërëmul rek da nga day daal di am problème moo tax xeetu yërmande jooj yàlla daf koy jël transféré na ko ni jël leen ci li ngeen soxla ngeen dund ko ci seen àddina mooy fukki fan yi jëkk yi